tolle loof ñoom ñaar ah ma ngi koy tàllal sengoor ga kenn ka am na lu mu ko sànni ci ginaaw arbitre bi joxe na coup d'envoi ñaari mbër yi ñu ngi léewtoo ku ci nekk yaa ngi jiital sa tànk ndejoor ñaari mbër yi ñu ngi léewtoo léewtoo bu gaaw ndeysaan histoire tey daal dina ko bind ah benn mbër mi am na lu mu cabaxal mais sa nañu ñu ngi ah attention benn mbër mi fayu na ci diggante ñaari mbër ah jàpp na yëkkati ah attention ñaari mbër yi ñu ngi jàppante àgg nañ suuf bëre leen ñaari mbër yi nañu ah jàppaat na tànk ba ah ndeysaan ma koy waaje a cabaxal ci diggante ñaari mbër yi attention attention ngi koy rokkos attention attention attention cabaxal ba ngi ca suuf xoola cabaxal ba ñaari mbër dañoo xaw a tollo tollo àgg nañ ci suuf attention attention laa ilaha illallah waaye lii kenn musu koo gis waa kan moo daan ana ku daan Samba Ndione daan na ci jël bu set wit ñom ñaar dañu ag suuf mu dóor ko xabal doof ko bara mu ag suuf Samba Ndione moo daan Dictionnaire te tey cee sàdd Maniang sumaré mi combat bu am solo tay ci digënté wa ndaysan mu nekk lam solo wa ndaysan ci top 5 ak mbissan ndaysan arbitre bi joxal verdict ñi ngi lewto ci digënté top 5 ak mbissan ndeysaan mu nekk lu am solo tey fii ci stade Maniang Soumaré mu nekk combat bu mag ci diggante ñaari xale yi ñoom ñaar dañoo xaw a tolloo doole mu ngi koy teqaat na ko dóor na ko ku li ma leen doon wax mi ngi nii ñoom ñaar dañoo tolloo doole ci diggante top 5 ak ki nga xam ne mooy Mbisaan ndeysaan kii mi ngi jiital tànk ndeyjoor kii jiital tànk càmmoñ mu nekk lu am solo tey fii ci stade Maniang Soumaré le premier mars attention attention. Mboy Mbissane moo ko dóor ku sànq attention kor na ko kor na ko ci diggante Mbissane ak top 5 attention top 5 dóor na ku mais ku perdu la ndeysaan ci diggante Mbissane ak ki nga xam ne mooy top 5 fii ci stade di Maniang Soumaré ñoom ñaar ñi ngi léewtu attention attention ndeysaan ku ci yàkkamti rek sa bëre dina yàqu tey ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi déglu sa morom di léewtoo ci kaw combat solo la nag tey ci diggante ñaari espoir yi nga xam ne ñooy aptation ñoom ñaar ñi ngi kaw ñaar ñi ngi ñi ngi ci digg bi ci diggante top 5 ak ki nga xam ne mooy mu combat solo fii ci Cees kaay benn ñaar gi attention jàppaat na ba ndeysaan Baye Wane attaque maa ngi koy rokkos maa ngi koy rokkos attention fàqat na ko fàqat na ko ñoom ñaar taxawaat nañu ci diggante top 5 ak Mbessane mu nekk combat bu solo tey ñaari xale yi dañoo xaw a tolloo doole nag ñoom ñaar ñi ngi ni teg ñoom ñaar ñi ngi ni teg ci diggante Mbessane ak ki nga xam ne mooy top 5. ñaari xale yi dañoo xaw a tolloo doole ñi ngi léewtoo dafa mel ni nag xaw na noo sonn ñi nga xaw a noppalu ñoom ñaar ndeysaan ba nga koy téq ndeysaan drapeau meken maan yi lañ ko tuddee ci ñaari comme attention jàppaat na tànk ba moom saa yu jàppee tànk mu lonk ko tonk mu galgal attention attention attention mboot ma attention ci diggante ñaari mbër yi takk na ko attention kal na ko ci diggante Mbassane Mbissane ak top 5 ñaari xale yay technicien lañu àgg nañ suuf ñoom ñaar top 5 ak Mbassane attention attention attan Mbassane top 5 ndeysaan ku daan ndeysaan ndeysaan ah nekk na lu solo tey fii. ndax loxo yi fonctionnéwul nee na lan waaw est-ce que dama yaakaar ma ni mu ko takkale woon ak bët bët ñoom ñaar ñi ak moo tax da koo mujj tegal seen bu waaw yaakaar naa ne ak yaram ak poids ak physique bi yaakaar naa moo xaw a jàpp loxo sec yaakaar naa ne tey histoire dina bind ni tey ci Maniang Soumaré stade Maniang Soumaré mooy lamb ju rëy lamb ji ñu ko